Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokku Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñépp vraiment di leen di ziyaara di leen bal aq di leen balu aq di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla Sénégal yàlla wàccee fi jàmm wàccee ko ci àdduna bi yépp di ñaan yàlla aussi mbas mi di Covid 19 bi yàlla jëlee ko Sénégal jëlee ko ci àdduna bi may ñaan nag képp koo xam ne tey yaa ngi seetaan live bi nga partagé nga partagé ko ndax nag tey dañ ñëw rek pour xamal sénégalais yi ne ku xamul buur saay na xam buur dee na ku xamul suur naa ñu téye sa loxo di leen fàttali aussi ne nit kenn du ko puus ba mu sës nit kenn du ko puus ba mu sës beneen yoon aussi di leen fàttali ne buumu jaam nga dagg na buumu jaam nga dagg na li nga xam ne tey moom la sunu maam yi doon xeex kilifa diine yi doon ko xeex ba tey senegal jot boppam bu fekkee am na waaye nag tey li ñu gën a sonal tey mooy ñun suñu biir ñooy jéem a nootante maanaam tey boo xoolee mbir mi ni muy ah, ni muy doxee dafa mel ni tey euh, Macky Sall daf ñu bëgg a jël tey soppi ñu ay jàmm lan moo tax dañ koo dénk réew mi ba pare dootuñu déglu lu ñu naqari yoonam newu ci lu ñu neex faalewu ko façon kàddu bu nekk façon négociation bu nekk naxante bu nekk yedd bu nekk def nañ ko mais buggul dégg donc li ma mëjee dégg nag tey ah le président Macky Sall li journaux yi wax ñu ne nee na complot yu baas yi maanaam mbir yu ñaaw yu ñàkki teggin yi yu yu yu yu yu yu suufe yi mu ne moom du dugg ci yooyu du def yooyu waaye nag tey euh, Sénégal tey waroon nañ am benn seede muy Idrissa Seck monsieur Idrissa Seck yaa fi taxaw ne Macky Sall moo la complot Macky Sall moo la jaxaseeg lay Wade jël ay nitam orchestré teg ay stratégie pour wax ne danga bugg a daane nguuru Ablaye Wade am na ay arm am na lu ne loo denc sa kër am na looy préparer biñ demee ba ca càppaandaw ga ñu ne ab Ablaye Wade xam na ne liñ doon wax dara amu ci ba mu leen xanaa bu ngeen di nar tuumaal nit dara sax ngeen dem sax fa ngeen koy tuumaalee ngeen jaar ca ginnaaw am lu ngeen fa wëcc buñ ñëwee au moins ñu am fu ñu mu jafande ko mais tuumaal nit rek ci ci ci ci ci dara loolu mooy yëfu dof dafa mel ni fi mu toll nii tamit ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane sonk foofu lañ toll ma leen di ma leen di ñaan rek képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi partagé ko ndax nag tey je pense que tollootuñ fu ñuy négocier dañoo toll foo xam ne dañoo war a bañ te ñu ngi woo sénégalais bépp sénégalais boo xam ne citoyen nga bëgg nga Sénégal te nga bëgg dëgg nga taxaw nga bañ parce que sunu waa ji ki nga xam ne mooy la président Macky Sall man dama yaakaar ne amul xarit li gën a bon li gën a métti mooy njiit boo xam ne amul xarit njiit boo xam ne ay dungur rek la am ay toppe rek la am parce que tey Macky Sall bu amoon ay xarit dinañ ko digal ci suuf bu bañee ñu wax ko ca kaw su bañee ñu taxaw xeex ak moom jàmmaarloo moom ndax ay xaritam lañ mën nañ xeex ak moom fu kenn newul te bu boobaa dina bàyyi loxoom. mais kii ma gis ne mooy président Sall ñi ko topp ñëpp ay noonam lañ ñi ko topp ñëpp seeni intérêt ak seeni privilège rek lañuy la ñuy xool que Macky sàll wax lu am ak waxut lu amut que Macky Sall di daanu wala mu jóg ñoom yoonoon new yoona seen yoon new ci tey bu fi Macky sàll jógoon it ñu ànd ak keneen ndax ñoo àndoon ak Ablaye Wade ñoo àndoon ak Abdou Diouf tey ñoo ñëw ànd ak Macky sàll ñi doon wax démb waaw ñooy wax tey déet ñu doon wax démb déet ñooy wax tey waaw kon fan lañ jëm le président Macky Sall encore une fois mbir mi taqewoo ci d'accord mais tey ñi nga xamante ne yaa leen coiffé yow mi nga xam ne yaay njiitu réew mi nga xam ne kenn du def dara lu dul yow ànd nga ci kenn du def dara lu dul sa ndigal la ko defee tey foog naa ne lii nga xam ne moom moo xew ci enquête yi te gendarmerie def ko lii nga xam ne mooy rapport bi nga xamante ne médecin bi joxe na ko man je pense que loolu rek c'était suffisant pour que ñu arrêté coow li Sénégalais yi dellu seen jàmm dellu seen liggéey enquête bi gendarmerie génne ak rapport bi nga xam ne médecin bi joxe na ko man je pense que loolu fayoon na coow li ñun nag bi loolu yëpp génnee dañoo sant yàlla parce que dañoo gëmoon ne Sénégal c'est un pays de droit bay féliciter la gendarmerie di féliciter médecin boobu nga xam ne moo def rapport médical bi ndekete loolu li nga xam ne mooy mooy justice du Sénégal faalewuñ ko sax toppatoowuñ sax yooyu ah tey nag ñu gis ne assemblée national mi nga xam ne moom askan mi moo leen fal ñu waroon indépendant lépp loo xamante ne ci wàllu justice la ñu bañ ci dugal seen loxo gis nañ ne ñoom aussi ak seen njiit Moustapha Niass jóg nañ pour simmi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko jóg nañ pour jàppale képp koo xam ne yaa ngi jéem a jël yaa ngi bëgg a jël Ousmane Sonko yàq carrière politique am ñaf ko ci kaso bi comme ni ñu def Karim wàdd comme ni ñu def Khalifa Sall encore une fois dinaa leen ko rappelé waat Ousmane Sonko du xalifa Sall te du Karim wàdd Ousmane Sonko du Khalifa Sall du ay Karim Wade Ousmane Sonko dafa am ay taalibe. dafa am ñoo xam ne bu fi Ousmane ko jógee sax li nga xam ne moom la Ousmane Sonko gëm ñu continuer continuer liggéey bi ndax toppuñ Ousmane sonk dañoo gis ne li ñu bëgg ci Sénégal ñoom laa nouvelle génération li ñu gëm ne moo mën a libérer Sénégal li ñu gëm ne moo mën a dimbale sénégalais li ñu gëm ne moo mën a dindi sénégalais yi ci pauvreté ñoom philosophie boobu lañu am di ko partager ak Ousmane Sonko. tey nag ñu ngi def nag euh, di jàpp nit ñi rek. parce que vraiment lii moom dafa ñaaw ko c'est vilain xam naa ne ku ànd ak Macky Sall sax vraiment te ngay kilifa am looy bañ am looy rus àndoog moom ci li mais nit tamit loo ko bëgg-bëgg boo gisee ne ah mu ngi def lu dul yoon wala ñamu dénk ñu ngi doxalee noo xamante ne du yoon te mën na ko yàqal ca lem leen dénk yow yaa ko war a woo yëgal ko ne ko sa gars yi li ñuy def baaxul ci yow te baaxul ci réew mi encore une fois ma leen di wax ne lépp loo xam ne baaxul ci Sénégal baaxul ci Macky Sall tax musiba buy ñëw ci Sénégal balaa muy dal ci kenn ci Macky Sall lay dal wala bu dalee feneen it ci Macky Sall lay mujjee moom mënu cee mucc monsieur le président ah un citoyen ku bëgg Sénégal ku jotewul ak yow dara hmm, ku toog di xool di observer di suivre di xool mbir mi ni muy avancé ah booy fexeel nit nag yow xamal sa pexe rek mais bul xam waa ji ay pexe moom fan la toll te nag sénégalais yi le peuple sénégalais askan wi la jeunesse sénégalaise pare nañ pour defante gars yi bu ñu naxante gars yi yi ma dégg ñuy wax ñi ma discours yi ma dégg ñuy tenir gars yi pare nañ pour defante pare nañ pour joxe seen bakkan pare nañ pour jàmmaarloo te nag loolu la ñuy bañ Sénégal loolu moom lu mu métti métti métti nañ invité loolu te le président encore une fois yow lay interpeller directement parce que naxante nañ waxtaan nañ lu ne def nañ ko jéem nañ dialogue mais nag dafa mel ni nit ñi ay gaynde yu déggul jat lañ nit ñi ay gaynde yu déggul jat lañ peuple sénégalais bi nag yegg na fi ñu yeggoon ak Ablaye Wade yegg nañ ak fi ñu yeggoon ak Abdou Diouf 88 waaye ba léegi contexte yi bokkul contexte yi mobilisation yi bokkul information bi vitesse bi muy demee bokkul ubbeeku bi nga xam ne xelu sénégalais yi ubbeeku nañ ci àdduna bokkul beneen yoon aussi la président de la république xoolal dëkk yi la wër xoolal sa naataangoo yi nga xam ne ci ci at yii ñu weesu yàggul dara am nañ ay jafe-jafe ak seen askan am nañ jafe-jafe ak seen askan lan moo leen ko yóbbee dëgër bopp pare pour jàkkaarlook seen askan pare ne duñu dellu ginnaaw benn yoon mosieur le président bu fekkee mbir mi doo ci dara it ñi nga xam ne ah ñu ngi jël di instrumentaliser sunu justice dugal ci ñambaas ci li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale nga xam ne Moustapha Niass moo ko jiite di mag di kilifa ci réew mi waroon tey bàyyi fi woyu rafet ah muy jiite yoo xamante ne doy na waar ci mag assemblée nationale boobu nag tey je pense que jaratu ko parce que assemblée nationale amatu fa bu fekkee ne dañu askan wi dañoo tànn seeni député tànn ñu leen fa nekkal ñu dem ba mënatuñ yëkkati kàddu foofu ñu xañ leen seen kàddu kon ana assemblée nationale ana assemblée nationale kon kañ jaratul dem assemblée nationale jaratul ñu fay yóbbu dara di ko voté kon kañ le président de la république comme ni nga nekkee le président de la république nekk premier ministre di buum di mi di dogal ci lu la neex kon kañ lépp loo bëgg a dogal rek dogal ko sénégalais yi xam ne yow nii ngay doxalee fi mu nekk nii nag sénégalais yi dañoo sës sénégalais yi dañoo sës euh, monsieur le président bu fekkee déggoo sénégalais yi bu fekkee dégluwoo la jeunesse sénégalaise bu fekkee dégluwoo askan bi ah ñi nga xamante ne ñoo la jege ñu ngi lay nax askan mi ngi ñu ngi jooy te pare nañ askan bi ñu ngi jooy te askan bi pare nañu ah bu fekkee ne nag euh, monsieur le président sa départ précipité nga bëgg ah bu la neexee mun nga continuer mën nga bañ a dakkal coow lii mais maa ngi koy gën ci yàlla ne coow lii hmm, bés bu tàkkee ba tàkk ba tàkk monsieur le président doo ci mucc de doo ci mucc ñi la jiitu woon muccuñ ci te du yow yaa ciy mucc nee nañ xen du xeex ak état d'accord mais tamit état du xeex ak peuple am état du jàmmarloo ak askanam bu ko defee rek daanu état bu ko mësa a def daanu nga président de la république monsieur Macky Sall maa ngi lay fàttaliku bu yàggul dara sunu mbokk yi sunu cousin yi di Gambie ah monsieur le président ñun de ñoo jugé woon ñun Sénégal ak yenn dëkk yi ci CEDEAO ne Yaya Jammeh dictateur la Yaya Jammeh dafa bugg a nangu Gambie par force ndax gañe nañ ko ci élection yi boo gisee pratiquement <laughs> mais ñun ñoo fa jëlee Yaya jàmme ndax bañ nooteel bu mu doon buñ jàppoon ne moom lay noot gambien yi waaye bañ tamit li nga xamoon ne naroon na ko foqar ci par force ci gambien yi mais monsieur le président est que nekkul ne yow lii ngay def actuellement moo gën a pire li nga xam ne moom la Yaya Jammeh doon def est-ce que lii gënul piir li nga xam ne moom la Yaya Jammeh doon def ak képp koo xam ne moo nekk sa ginnaaw ak képp koo xam ne moo lay buux bës bu Sénégal tàkkee dinañ ëlbatiku war la li may wax xam naa ko bu baax a baax bépp chef d'état moo xam occidentaux moo xam France moo xam ku mën a doon képp kuñ mës a ngemb ba nga jàkkaarlook sa askan bu méttee rek ñu wan la ginnaaw léeg-léeg sax bëgg la éliminer am leneen lu ñu bëgg dina tax ñu puus la ba nga jàkkaarloog sa askan président Macky Sall bañal loolu bañal loolu maa ngi koy waxaat une fois coow lii hmm? nekk sa biir kër gi sa biir ëtt bi woowal njaboot gi nga fay coow li man bokkuma ci loolu du sa wax dugguma ci du sa wax tey sa responsabilité bi la war bi la engagé mooy nga fay coow lii képp koo xamante ne mu ngi ci di def loo xam ne mën na indil Sénégal musiba nga ne ko stop dafa jot ñu stop dafa jot ñu stop parce que nag tey lii raam nii ci ñag bi la jëm jàpp nañu Guy Marius jàpp nañu Clédor seen jàpp nañu Assane juuf yooyu yëpp dara tegul ci yoon dara pour lan mën a yegg ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko maa ngi leen koy waxaat encore une fois ku ko xam ak ku ko xamut laalaake la Ousmane Sonko laalaake la bàyyi leen ko Ousmane Sonko du président simple député la pourquoi mu war a mun a yëngal Sénégal pourquoi mu war a mun a déranger Sénégal te ñu ko bàyyi ngir yàlla mu joué rôle lu député ah joué partition ci réew mi monsieur le président nga continuer sa liggéey ak sa équipe. li nga xam ne moom la sénégalais yi di xaar ci yéen def naa appel nag ci première dame yi képp koo xam ne première dame nga ngay soxna autorité ci réew mi def naa leen appel je pense que message bi jot ngeen ci Sénégal nag ba mu naree tàkk ay jigéen a ko fay moo gën Sénégal ba mu tàkkee jigéen a ko taal déglu leen ma bu baax a baax yéen jigéeni Sénégal bu dee yéen a may dégg jigéenu àdduna bi yëpp ñu ngi leen di dégg senegal ba mu naree tàkk ay jigéen ñoo ko fay ñoo taxaw ne du tàkk waaye ba mu tàkkee ay jigéen a ko tàll loolu musiba la loolu gàcce la ci yéen loolu gàcce la ci yéen ñépp ak ñuy seetaan nag am na sax suñu ay mbokk yoo xam ne ay naataangooy réew buñ doon seen sago senegal tàkk loolu moo leen arrangé ñun sénégalais yi ñoo bañ ñoo war a bañ loolu mais kenn du ko bañ ku la président de la république ku waxul dëgg rek wax fen amul réew muy tàkk te du njiit ma moo ko taal amut ci lan ci dëgër bopp ci orgueil ci yëg boppam ci yëg am pouvoir yëg doole boo xam ne yàlla jox na ko ko waaye bépp ré njiitu réew bu am humilité sa réew bëgg sa réew fonk sa réew yërëm leen di ut jàmm sa réew sa réew du tàkk mukk te Sénégal loolu lañ mës a xam bu fekkoon rek dëgër bopp ak pouvoir Ablaye Wade ko ëppoon ñépp waaye keroog bi peuple bi taxawee Ablaye Wade dafa reculer waaye nag ci sagesse am parce que xam na ne fii li mu bëgg bu ko defee ay sénégalais seen bakkan dina rot tey Ablaye Wade reculer Ablaye Wade moo tax tey amul sens interdit Sénégal mais li mu bëggoon bu ko defoon Sénégal takk jour boobu te kon instant bi moom ci boppam kenn waxatu ko wala fa mu toog mu ngi am problème comme du mën a ñëw senegal dëkk fa nekk fa à l'aise tey monsieur le président Macky Sall dama bëgg li may wax ñi bëgg Macky Sall te jege ko nañ ko dimbale njiit am na fenn foo xam ne bu fa tollee ay mbokkam ay xaritam ñu koy ñu ko jege ñoo koy dimbale xeex nag day fin xeex day fin na coow li jeex na coow li dakk ngir yàlla coow li na dakk ngir yàlla ah gars yi nee nañ euh, Sénégal day tàkk li Abdou Karim Gueye wax démb mu ne Sénégal tàkk na bu yàgg waaw dañ koy gëm xam nga lu tax dafa mel ni ñu ne la àdduna day tukki waaye ku dee sa àdduna tukki na kon àdduna chaque instant mu ngi tukki ci ñi nga xamante ne dee nañ kon ñi nga xam ne ci Sénégal ñu ngi ci jafe-jafe munuñ lekk-lekk bu baax amuñ sécurité duñ tëdd fu baax buñu feebaree duñu mën a faju ndox mi ñuy naan sellul kon ñooñu kon mun nañ wax ne ñoom seen senegal tàkk na bu yàgg mais Sénégal tàkk na bu yàgg bi nga xamee ne li fi feeñ ci pétrole yépp kenn xamul fan la jaar Sénégal tàkk na bu yàgg bi nga xamee ne ay nit ay autorité ñu leen ay milliards yu dul jeex caxat-caxatee alalu réew mi kenn oowu leen benn procureur oowu leen oowuñ leen assemblée nationale oowuñ leen fenn askan wi jooy na ko ba sonn te taxawuñ fenn weddi ko te kenn oowu leen monsieur le président Macky Sall bul fàtte ne bu fekkutoon woote bi nga xam ne woo nga ko Karim wàdd assemblée nationale pour déglu ko doo mës doon président ndax woote boobu nga woon Karim wàdd moo tax Ablaye wàdd jàmmarloog yow ba nga tàqale koog moom ba tey askan wi yërëm la. jàppale la pour topp sa ginnaaw ba tey nga nekk président dafa mel ni ci yoon woowu nga nekk ah monsieur le président li la fal bul ñaan yàlla mukk mu folli la li la fal ñaan yàlla mukk mu folli la te nag ba ngay nekk président ba sénégalais yi di la yërëm di la jàppale di compatir doole bi Ousmane Sonko am monsieur le président amoo ko woon kon Ablaye Wade waroon na la moytu xëy na bu la moytu woon tey bu xëy na Karim Wade mooy toog ci pouvoir bi waaye moytuwu la waaye yow it maa ngi lay diggal moytul Ousmane Sonko nit boo buggee duma sa adversaire da nga koy respecté nit boo buggee duma sa adversaire da nga koy respecté da koy jox cër te tey nag sa adversaire du Ousmane sonk c'est la jeunesse sénégalaise li ëpp ci askan wi tey ñoom ñooy sa adversaire tey mbir mi kenn mënu la ci dindi kenn waxul ne daa def complot nag waaye xam nañ ne tey coow lii yaa ngi koy seetaan yow yaa ngi seetaan yow mi nga xam ne yaa yor lépp lépp lu dox Sénégal fi mu ne nii yaa koy doxal loo ne stop lépp na stop lépp taxaw kon monsieur le président xoolaatal sa bopp yéen ñi nga xam ne yéen jege président yéen ñi am privilège yi wax leen ko dëgg sinon seen privilège yi du yegg 2024 peuple sénégalais bii ma gis dañoo pare peuple sénégalais bii ma gis dañoo waajal seen bopp je sais que nag du police du armée la gendarmerie la police l'armée sénégalaise bu méttee du ñu rey seen doom de bu méttee bu méttee bu desee ci rekk rey Séné rey la peuple sénégalais tirer ci peuple sénégalais bi noonu duñ ko def ils vont baisser les armes loolu moom président Macky sàll dama bugg mu leer sa bopp leer sa bopp ñi nga xamante ne ñoom yow lañ àndal dafa am ne buñ fa yeggee ñu baisser les armes parce que nag seeni doom lañ seeni frère lañ seeni jarbaat lañ ñoom la ñuy jàmmarloo président Macky Sall luy raam ci ñag bi la jëm. luy raam ci ñag bi la jëm hmm? kilifa diine yi peut-être yéen a ngi wax ci suuf wax leen ci kaw sénégalais yépp dégg leen ñi ñuy invité ci plateau yi ñu nekk ay naafeq di wax ay wax yoo xam ne teguñ ko fenn ñeme yàlla gëmuñ dara foofu amuñ fa place du seen place actuellement yéen kilifa diine yi yéen yéen a moom plateau yi yéen yéen a war a moom rajo yi yéen a war a moom tele yi te yéen a war a wax lu sénégalais dégg yéen a war a wax lu président Macky Sall dégg médiation nag fi mu toll jot na képp koo xam ne bëgg nga jàmm tey jot na nga jóg tax nag le président bi ma gis ak équipe am du ñu reculer te ñi ñuy song sës nañ kon xam nga bu ñu bu amul ku dox seen diggante rek foog daje am. te bu dajee amee nag mu métti ci ñaari côté yépp waaye nag luy tooy dina jóge ci peuple bi waaye fu muy mujjee tooy tooy bi ah ci réew mi la ci ci njiitu réew mi lay mujjee de ku leen ko waxul da leen di nax te nag nu ngeen di gën di yokkee rek nu ngeen di gën di avancer rek di gën di am ay noon tey am na ñoo xam ne démb say soppe lañ woon am na ñoo xam ne démb dañoo àndoon ak yow am na ñoo xam ne démb dañ la bëggoon mais tey découragé nañ tey weddi nañ tey gëmatuñ tey ruus nañ am nañ gàcce te nu muy gën di demee rek nit ñi di gën di dëñ ci yow parce que nit ñi Sénégal moo leen ñor man je sais ñi la bëgg ñi ci ëpp Sénégal lañ la bëggee mais bëgguñ la yow en tant que Macky Sall parce que gëm nañ ne da nga bëgg dañoo gëmoon ne da nga bëgg Sénégal danga bëggoon ne boo ñëwee soppi ak discours yi ñu doon def ak promesse yi ñu doon def nga nga ñu doon defal tey ñu ngi doon xaar. sunu milliards yi terre bi nga xamante ne xaw ñu ñaata milliards la autoroute à péage scandale sur scandale scandale sur scandale bokk na sa équipe yi nga xam ne tey kenn nekkatul sa ginnaaw parce que xam nga ne ñoom ñépp luubal nañ xaalisu Sénégal te kenn woowu leen ñun loolu la ñuy xaar tey sénégalais yi nekk ci guddi gu gët setagul ñu sonal leen nit ñi xoqatal leen bundu leen tiital leen xamuñ suba lum ñuy indi ñu ñu ne dañ leen di vacciner ñu ne léegi nag léegi situation bii la ñuy ñëw pour vacciner Sénégal xanaa nit boo koy vacciner sax xelam dina dal vaccin yi tey balaa ñu ko doon war buñ ko indi woon sax sénégalais ñoo war di njëkkalante pour ñu war leen ko vaccin pour ñu vacciner leen tey njëkkalante la woon pour sénégalais yi dem di njëkkalante vaccin yi mais loolu mënul nekk parce que gëmatuñ kenn sénégalais yi wóolootuñ kenn nit boo koy nax di ko nax di ko nax di ko nax ba mu dem ba xam ne yow naxaate kan nga mais loo ko waxati du ko gëm loo ko waxati du ko gëm sénégalais yi ñoo toll fii def naa ko ci benn vidéo yaa a un mois ne leen dañu toll foo xam ne nit ñi dañoo tiit parce que kenn wóolootul kenn ñi nga xam ne ñoom la ñu waroon def ay référence ñoom lañu waroon def exemple gëmatuñ leen ndax kenn ku nekk buñ la xoolee rek am lu ñu lay xeebee ba duñ la mën a gëm ba muñ la buñ la mën a def référence duñ jéem duñ jël benn repère ci yow il est temps que vraiment nit ñi xoolaat seen bopp su ma ne nit ñi tey nag njiit yi laay wax vidéo bi tey njiit yi ñoom ñoo ko moom encore une fois le président de la république le peuple sénégalais est dos au mur le peuple sénégalais est dos au mur yéen a ngi xeeb yéen a ngi xeeb kenn waxut climatiseur yaa ngi jolli hmm? ginaar yaa ngi jolli lekk yi neex yaa ngi jolli yor sa télé yor sa satellite di zappe fu la neex maa ngi gën ci yàlla ne gis nga coow lii buñ ko dakkalul yuuxu di ngeen ko dégg fu ngeen ko foogeewut yuuxu dingeen ko dégg fu ngeen ko foogewut ana Idrissa sekk boroom làmmiñ bu neex bi ana sa Seck ah borom làmmiñ bu neex bi boroom wax waxet gu métti gaay gaay wax dëgg yàlla enquête bii gendarmerie doon def te ñu am ñuñ ci tudd moo doon fay coow li ñu bàyyi enquête bi mu déroulé képp koo xam ne tudd nañ la ci boo ci laalee ñu jël la teg la ci yoon loolu mooy yoon waaye lii ngeen di def du dëgg du yoon ku nekk xam ne ku ko wax ak ku ko waxut ku ñeme ak ku ragal sa waa ji bu ngeen ko bëggee wax leen ko dëgg bu ngeen ko bëggee dimbale di continuer di dund seeni privilège ak seeni intérêt fii ba 2024 wax leen ko dëgg peuple bi nelawuñ te peuple bi pare ne man nag dama ragal ne c'est l'heure de la révolution dafa mel ni révolution moo jot révolution moo jot lii ñuy def yépp am na ñu leen koy defloo bu ngeen gisee àdduna bi dafa mel ni dañuy soppi xelu nit ñi dañuy nit ñi di soppi système yi di soppi di soppi di soppi mais ñan ñoo nekk ci ginnaaw mais soppi ko boobu ñuy ñu ñu bëgg a ñun duñ ca dem ndax amuñ fa place match la boo xam ne buñ demee duñ doon sax supporter spectateur la ñuy doon loolu duñ ca dem yii ñuy def nii yépp am na ñu leen di dëgëral mais nag encore une fois sénégalais yi pare nañ <laughs> yéen a ngi minimiser di tuuti loo xamante ne tuuti wut respectez le peuple sénégalais respectez le peuple sénégalais sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi dee nañ sénégalais yi xiif nañ sénégalais yi mar nañ instant bii lu doon xaar ñu xool nu ñuy def ba les intellectuels sénégalais les ingénieurs les scientifiques sénégalais ñu mettre leen dans de très bonnes conditions ñun ñu nekk ci àdduna bi yëpp dellu si Sénégal xool ay projet xool ay industrie yoo xam ne dinañ ko def Sénégal béy àll bi yi nga xam ne mu ngi ne yàmbalang xool nu ñuy defaat suñu géej gi ba mu am jën su ko defee Sénégal am liggéey li ñuy am ci ay meew di am ci lépp ñu koy transformer Sénégal au moins am benn autonomie ñun loolu lañ doon xaar yooyu yëpp gisuñu ko ñu boole si nag bëgg ñu noot bëgguñu ñu di ñu xoqatal ñii ngeen di jàpp ah fekk leen seen biir njaboot toroxal leen jël leen yóbbu leen ñooñu nga xam ne ay góor góorlu lañ seen njaboot lu ñuy dundee seen njaboot lu ñuy dundee mais yërmande zéro yërmande zero ci ñoo xam ne defuñ leen waxuñ leen tinuñ leen mais maa ngi leen koy gënal ne Sénégal pare nañ Ousmane Sonko bés bu ngeen ko laalee tàkk-tàkk di ngeen ko gis fu ngeen ko foogee bu nit ñi di wax nag ngeen ne nit ñi ñii dañoo bëgg ay ñii dañoo bëgg a taal réew mi ñii noppi ci ay wi ñoo bu réew mi taalee tàkkee ñoo ko takk ñoo ko taal képp ku war a wax te waxuloo bu réew mi tàkkee yaa ko taal président de la république coow lii bu dakkulee danga xam ne quatre vingt pour cent de responsabilité ci coow ci takk takk Sénégal te revient te loolu man maa la koy waxaat beneen yoon coow lii boo buggee mu fay mu fay Marème fay sàll interpellé nañ la ku nekk wax na démb interpellé naa la vidéo bi je sais que jot nga ko ñu ngi xaar sa réaction bugguñ Sénégal nag kenn di ci jàmmarloo bugguñ fi ay bëgguñ fi dara kon mbir mi nañ ko yemale fii nit ñi dox seen soxla yi nekk seen jàmm waaw seen campagne de vaccination bi ngeen arrêté ko te bàyyi sénégalais yi ku bëgg a vacciné wu mu vacciné wu ku buggul vacciné wu ngeen bàyyi ko képp koo xam ne yaa ngi am looy ragal yaa ngi am looy tiit bu fekkee ne dem nga di vacciné wu ak tiit ak peur te li ngay def wóoru la amoo ci confiance mën nga am problème nit lépp looy def na nga ko def ak sa conscience tranquille nanga nga ko def ak sa tey bakkan na nga ko def nga assuré bëgg ne da nga koy def ñu ngi yemale fii vidéo vidéo bi nag neexul du vidéo bu war a neex parce que gis nañ ne vraiment ñi ñuy waxal ay gaynde yu déggul jàpp lañ te lu ëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala képp ku mun a partager bi na ko partager. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.